wala rek nga bëgg a raxas sa yaram ba sa yaram seen wicc wicc wicc nga xam ne benn liggéey du ci nekk benn diis diis du ci nekk benn sëf du ci nekk bindal lii benn faatixa ngay bind ak benn ayatul kursi benn laxadi jaakum benn ixlaas benn falax benn naas nga def ci benn nen benn nen nga ci def sangoo ko benn yoon boo ko sangoo rek lépp lu nekkoon ci sa yaram day daaj dañ te dana la protéger incha allah te kenn dootu mënal dara boo paree nga jël nen bi dem ba ci benn euh, sele bu yoon foo xamante ni te boo ko sànni guddi nga koy sànni nga sànni ko fa mboolem lu nekkoon ci sa yaram dina dañ incha allah te dina la protéger bu soob yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu